du jóg ci yaa soof waaye bi gën a fitnaal nit ñi nag laa lay indil nag bi nga xam ne yàlla nee na ku mu dal sa dund yàqu na yaxeet yaxeet alku nga mooy ñaaw xalaat ñaaw njort mooy ñaaw xalaat yiraamee toogagu saaroo na wóor na ma ci man la ñu ne loo def bañ na ci yow Iran moom muy wax wóor na ma maa wax jooju lu la est yaa nga ci xelam nekkoo sax ci xelam Serigne Mansour Sarr doomu mu niiru Sarr la radiyallahu anhu sëñ Muniiru Mansour suma xarit la suma Serigne la daf ma wax ne ma Serigne Muniiru Sarr nee na léeg-léeg ñu ne Pape Gueye yaa wax nàngam baa yaa def nangam nee na doon nga dund ba dee doo ko xalaat waxuma la di ko wax waaye doo ko xalaat li ne yaa ko def doon nga dund ba dee ci doo ko xalaat ba di ko def moo tax nit kenn du àtte xelam kenn du àtte xolam boo ko defee bàkkaar fekk la ci ijtanibu kathiran min azanni inna baada zanni ismun man nag moo tax may gëj waxtaan parce que sama wax dafay garaaw pap Pape day toog fi mu toog naan élage man lay gaaruwaale mii luy loolu eh, soose wax loolu Baye Amma wax loolu Kamal wax lu mais non non parce que kii ki muy nettali waxam mooy yàlla su fekkee li yàlla wax yaa koy def amul gaaral yaay borom tout court c'est ça loolu rek mooy moo fi nekk pour nit dundam neex mu noppalu alquran nee na na rafetal xalaatam rafetalal sa xalaat njort bu ñaaw day fitnaal nit doo lekk suur bu nit kiy wax nga ne maa moom wax ji bu nit kiy jëf nga ne maam moom jëf ji su la rombee nga ne boo demee samay mbir la ne or ka talu la moo tax yàlla ne ku bëgg sa dund neex régleel sa xalaat bu bul ñaaw xalaat dee ko réglé xalaat dañ ko yar pap ji nga ni oto di amee frein noonu la xalaat di amee frein am na foo xam bu fa bëggee dugg rek kat bu naaj ko bu mu jàll bu jàllee rek yàqal la lu bari ijtanibu kathiran mina zanni moytu leen lu bëri ci ñaw njort inna baada zanni ismun nee na lenn njort da jural bàkkaar te mooy atte waxi nit jëme ko feneen atte jëfi nit jëme ko feneen te wóor na ka wax baa mu jëf xalaatul fa nga xalaat yow wala tajëssasoo mu teg ko bu leen di yëddu nag ak di gëstu waaw lu Iran wax tey lu Iran wax tey mhm, lu kan mooy laaj loolu ki Iran ki neexul Iran wala Iran neexu ko walla mu jàpp ne Iran moom moom lay waxal waaw lu Iran wax tey enregistré ma waxam bu paree tegal ma ko damay génn tey waaw bu commencé eh, maa ngi lay yónnee crédit def ko ma déglu ko. mas naa ko benn nit eh, mu ne ma damay dañ ma ko tegal par téléphone may déglu nga wax loo rek ma ne wuy sama ndey ba dañ koo wax téléphone ma ne ko noonu alxuraana a mel noonu mu ne ma tikat booba maa ko teglu téléphoné ne nañ ma ko tegal ma déglu ko ndax xam naa ne nangam ak nangam moo tax ñaaw njortu baaxul waaw ah, baaxul day sonnal nit waaw Pape bu dara xoolal soo fekkee ñoom Kamal di waxtaan ak Baye ma bul bëgg a xam sax la ñuy wax soo fekkee Bintu di wax ak ak euh, Babacar Ndaw bul bëgg a xam la ñuy wax waaw soo fekkee Pii di waxtaan ak Babacar Saw bul bëgg xam li ñuy wax yow sa yoon bu mu ci ne. waaye naa ne waaw lu tax gaa yi waxte woowuñu ma woo na ma ca man lañ ne boo demee dañ may fexeel boo demee nangam Pape da ngay xëy woo ko mu jeex tàkk al ko ba tottooral bu ko def bu ko def mukk ñaaw njort baaxul day taal day tardé nit yàllaa ko ijtanibu kathiran mina zanni moytu leen ko inna ba'da zanni ismun wala tajassasu bu leen yëddu bu leen jéex bu leen xool parce que Pape kaay ma wax la euh, ku xool gis ku déglu dégg te léeg-léeg nga déglu waxtaan seytaane dugal ca boo xalaatam ne la wuy ni ko xalaatee ni la allazi yuwaswisu fii sudoori minal jinnati wa naas yàlla ko ne eh, day jaxas sa xel jaxas sa xol ne la ne la kii yow lay wax ñaaw njortalee ñëpp wujj yi jigéen ñi wujj yëpp ñaaw njortalee rek ñun ñi ne ci këru sëriñ si nekk sëriñ si ñaaw njortu ñu bu sëñ bi tëjoo kii ti tëjoo wala yow nga ne ci man la ñu ne waaw liggéeyukaay ministère yi partout yi foo dem looloo fa ne papa xalaat ni oto di amee frein. noonu lañ koy wutalee frein bu naree màmm nga ne ko xiij mooy bu Iran naree romb heure bi nga ne ko jeex na kon ku bëgg a laaj mën nga woote ci 77 900